d'abord rek ma le président Salou Diakhaté le président de la zone pour la parfaite organisation de cette euh, belle finale ma nuyu au passage le président de l'ODCAV Ousmane Diop ainsi que l'ensemble des présidents de zone qui sont présents aujourd'hui de même que les présidents d'ASC waaw ñu ñëw tey comme ni nga ko waxee euh, parrainer la finale de la zone ànd ak euh, l'ensemble du bureau municipal dont le premier adjoint au maire Ablaye Sall mi nga xamante ni mu ngi ñuy topp euh, comme ni ngeen ko seetloo euh, mu nekk une très belle finale stade bi mu ngi fees les supporters son en train de rivaliser d'ardeur euh, premier mi-temps bi gis ngeen ni c'est un match très disputé Espoir moo mené 1-0 mais le match se déroule dans le fair play et la sportivité donc lii mooy Thiès Thiès c'est une de football donc on essaiera de mettre tout en pour que xale yi nga xam ni football mooy seen passion ñu mën a exercer seen passion boobu nga xamante ni moom mooy football. mais bu ñu gisee organisation bi final yombul ndax yombul final bu mel nii ñu gis nit ñi ni mu mel alors est-ce que mën nañu wax ni vraiment euh, c'est la personne de Maître Diagne ak le bureau municipal euh, moo toll noonu. bon je ne dirais pas ça euh, xam nga ñun la chance d'avoir quatre finales la ñuy Euh, commune bu Thiès Nord ñaari final la am Thiès Ouest am ñett mais ñun ñeenti final la jam parce que ñun ñoo ëpp ay ASC yàlla yàlla moo def suñu commune nekk commune boo xam ne commune bu populaire la euh, xale yi bëgg football boo gisee ma demee nii ak man mooy que man je suis un produit du mouvement navétane donc je ne suis pas un terrain inconnu laa nekk donc su ma ñëwee ci biir waa navétane euh, damay nekk samay ñoñ loolu moo tax nga gis ma nekk en symbiose ak ñooñu euh, je passage la présence sama jeune frère euh, ma jaxate ñaa nga xam ni bëri na final cadet yoo xam ni moom moo ko parrainé mu ñëw ànd ak ñun ñëw assisté final bi donc ñuy ñaan euh, final bi ni mu commencé yàlla na ko eggee gis nañ une mais ku xool qualité terrain bi nga xam ni terrain bi du pour football ba tax na bu Thiès dans le budget de 2024 Euh, am na pàcc bu am solo bu ñu jël pour defar gazon synthétique pour stade Ndiobou Koldou donc incha allah rabi bu déwénee moom ci gazon synthétique la ñuy football nawet daal di fii Thiès. loolu c'est une très belle nouvelle ñu leen ciy jaajëfal mais balaa ñu lay bàyyi euh, gis nañu accompagnement bi nga ci ñaari ASC finance yi démb dem nañ seeti leen ñu remercier la loolu day wane ni euh, yaa ngi topp jàppale sport bu baax parce que yow comprendre nga ni. pour jàppale ndaw ñu si dëkk bi il faut ñu jox leen espoir ñu bëgg non man dama nekkoon président ASC j'ai été président d'ASC pendant 15 l'une des plus grandes ASC de de Thiès euh, xam na président d'ASC yi li ñuy daj xam naa ASC yi li ñuy daj moo tax mu indi innovation boobu au-delà des subventions yi ñuy jox zone pour mu organiser man jël ci sama gafaga dem fekki ASC yi ñaax leen woo leen ci fair play ak sportivité ba pare jàppale waale leen ci organisation finale bi je crois que loolu si un devoir pour nous et nous le faisons de gaieté de cœur. waaw un message de fair play rek c'est-à-dire que moom fair play la et je crois que supporters yi tey loolu lañu indi euh, innovation boobu moom laay wax président Odeka Sànq ma ne ko yi war nañ leen féliciter. remercier leen parce que innovation ren ci nawetaan mooy supporters yi dañu indi animation et loolu c'est extrêmement important donc ñu ngi leen di encourager di leen féliciter président ODCAV nee na dina organiser benn compétition entre les supporters et incha allah loolu moom ñun dinañ ko sponsoriser bu neexee yàlla incha allah. ñu di la euh, remercier ci liggéey bi ngeen def. c'est moi man maa leen di gërëm di leen sant surtout yéen waa presse parce que yéen yéen a ñuy liggéey bi nga xam ne moom la ñu sant. Euh, nit ñi di mën a gis liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def ñu ngi leen di gërëm baax di leen sant et di ñaan yàlla final bi ni mu commencé yàlla na jeexee noonu may félicité au passage laay c'est moom moo jël la finale cadette moom euh, devant guy gi ay xale lañ ñu ngi leen di encouragé di leen ñaanal yàlla carrière football bi ñu entamé yàlla defal leen ci ndam incha allah. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp c'est Saliou président de la zone 5A de la Dakar de Thiès bon la zone 5A moo doon zone boo xam ni euh, moom mooy organiser boppam parce que dafa doon zone boo xam ni yàlla dafa di ASC yi si nekk yëpp dañoo nekk si zone yoo xam ni quartier yoo xam c'est des quartiers populaires raison pour laquelle à chaque fois booy organiser pratiquement li ngay bëgg yëpp da nga moo tax des quartiers populaires yoo xam ni saa booy organiser en masse yëpp dañuy ñëw ba pare quartier yoo xam ne il vit le football raison pour laquelle à chaque fois bu ñuy organiser euh, lépp li nga xam ne dañ ko siy seetlu dañ gis quoi. moo tax vraiment tey boo gisee final bi wane na boppam boo xoolee par rapport ak final bi jot a jaar yëpp nga xam ne bii vraiment sa diamétralement moo opposé ak jot a jaar quoi. ñu xool ne aussi les ASC euh, ngeen seetaan da ngeen leen a accompagner pour que ñu mën a wane le meilleur d'elle-même euh, loolu lan ngeen gën a ko xalaatee. waaw xam li ñu wax rek nawetaan avant tout dafa doon loo xam ne c'est du social te bi ma nekkee président zone ba léegi. sama objectif c'est def de telle sorte que loo xam ne ASC dañ si gis seen bopp quartier yi gis seen bopp génération yëpp gis seen seen bopp parce que euh, nawetaan boo xoolee par rapport ak euh, championnat populaire yi championnat ligue yi am yëpp boo xoolee par rapport yi ñëw si stade beeg yi ñëw bu championnat amee jamel taal moo opposé nga xam ne loolu phénomène la boo xam ne si mouvement nawetaan rek lañ ko mën a am quoi donc loolu tamit euh, raison pour laquelle loolu moo ñu la a avec bi nga xam ne daf ñuy jàppale mu doon ñu am on a eu la chance am un maire boo xam c'est un maire sportif loolu moo ñu gën a mën a pousser bañ lii ñu def ñu ñem koo def sans gêne quoi. alors euh, président dégg léegi yaa ko monsieur le maire mi wax ni dafa bëgg def li nga xamante ne mooy gazon ci champ course bi muy un accompagnement ak liggéey boo xam ne yéen koy liggéey de concert loolu nan koy jàngatee ak noo koy gisee. loolu du bett mënuñoo que depuis bi bi. ñu xam ni kooku ñun problème bi ñu soxla wala li nga xam moom la ñuy xalaat moom moo ñu ko gën a xam donc moom bu demee ba xalaat ni day def fii terrain synthétique final bi gis ngeen li mu mel da leen leen bu déwénee bu fekkee fii synthétique la la zone 5A bu fi organisé dina doon beneen dimension bu extraordinaire ñu ñaan yàlla mi dara taw rek baxa ba lii nga xam ne moom mooy objectif am mu atteindre ko luñ tax ko l'année prochaine bu dikkee fii mu doon. lu extraordinaire moom lan la ñuy ñaan quoi. Euh, lan ngay wax ASC waaw di wax rek comme ni ñu ko waxoon dès le départ rek que le maire gagne parce que li ñu violence jouer sans violence parce que moom moom la doon xeex depuis le début bari na ñu ngi yàlla muy dimbali ñu def final vraiment ñuy ñaan ñu fubal sans violence que le maire